Heavyweight.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 mangasin chinois ci allée centenaire bi Mohamed Gassama moomu nag di policier bi ñu raje woon moom la ñu ne moo doon jéem a rëcc ca prison bu Cap Manuel mbete prison bi rek plan boobu nag mu ngi ko tegoon ak benn détenu bu ñu naan Adama Diouf ñu jàppoon ko ci wàllum jaay yamba mu xeet mu xeet ma ne bu dul woon vigilance su garde pénitentiaire yi kon seen coup bi dina réussir la wax mbir mi nag mi ngi xew la 9 août bi weesu nee nañu ci cadre xeex bi ñuy xeex jàngoro jii di corona détenu ni ñuy tàncaloo ci kaso yi surveillant yi dañuy mujj ubbi chambre yi ngir permettre détenu yi ñu doxantu teyit mën a féexalaale chambre yi chambre yi ci bis bu nekk dinañ ko ubbi lu toll ci ñaari waxtu ma ne ci ubbi boobu ñu doon ubbi chambre yi nag ci la Mohamed Gassama ak aadama Diouf def naroon jaaree rëcc ya fii nag nii la demee garde pénitentiaire yi dañoo jekki-jekki dégg bruit bu bari ñu dem ngir vérifier lu ko wundu ci la ñu bettee Mohamed Gassama ak Adama Diouf di waaj rëcc ndax poubelle yi fa nekkoon la ñu tegalee ngir bëggoon a tëb miir bi mbete prison brek ci noonu lañ leen neutraliser waaw góore waay Mohamed Gassama di policier boobu ñu rajee woon nag ci renseignement yi nee nañu c'est pas la première fois muy def lu ni mel ndax tante woon na ko la premier août bi weesu moom ak beneen détenu buy wuyoo Cheikh Tall ca commissariat bu plateau ba ñu leen fa defee garde à vue ma ne la kaso yee neexul de suñu kaso yi xat na fees na moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca ñooro tiis na yëf yi mu ngi xewee ca commune Paoskoto bàcc faal di ab xale bu am juróom-ñetti at moo fa lab ab bassin de rétention ca yi mim réew mbir mee ngi xew la 15 août bi weesu nee nañu xale boobu mu ngi dëkkoon ca dëkk bu ñu naan kër Samba Gueye doonoon taalibe ca daaraay waajuñ naan Mamadou Coy nekk ca village buñ naan wentee mi yëf yi nag bi mu xewee bi ñu alerte élément accident su sec brigade sapeur pompier ak ndimbalu dëkkandoo yi ci la ñu reposé néewu xale bi yóbbu ko ca morgue strict sanitaire ba nekk ca Nioro tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca bambay ca ndàngal ma doy na war ab waaju tàggo xelam moo fa jàpp ab doomam bu am juróom-ñaari dóor ba mu jaare fa ñakk bakkanam ëskay waa ji way takk der yi mujj nañ koo teg loxo réew mi li xew bari moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax ndekete yoo yenn saa jigéen ñi ñuy tëj ci kaso yi lëf dox seen diggante teg leen di garde ma yenn saa yi ay relation mbëggeel am ci de yu dem ba yegg ci njombaxtal tal laa wax kaso yaa ngi toj dee la xew ca prison bu Jurbel doy na war ab détenu bu jigéen lafa ab garde ëmbal ba noppi bañ ko mo waay détenu bu jigéen boobu di wuyoo ci turu akaanaak ñu ngi ko condamné woon juróomi atu kaso ci wàllum jur doom ba noppi faat ko pulaw ndekete ndaw soosu bi mu nekkee ci kaso bi moom ak benn garde ña nga ca woon ndaw si ne toujours su doon préparer régisseur bi lekkam fekk boobu sen chef yi génn nañ la ji di profito séq ak moom co nee na nag waa ji mësu koo violé moom ci boppam moo ci doon ànd ëskay li de mooy ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko wettali li jël bunt bi du leen boole li doy war mooy ndaw soosu da doon jéem rayaat bébé bi mu am ak garde bi mu ba noppi bañ ko <laughs> ma ne tàmm laago la laa wax xaw ma kan waaye kii du ma jural doom nee nañu yu ni mel nag yàgg na am ca prison bu Jurbel ndax ci atu 1995 am na garde pénitentiaire bu fa ëmbaloon benn ni ba noppi mujj ko takk ay nit day assumer ay responsabilité moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax ab ngandu maamu trafic de faux passeport la élément sûreté urbaine yi dem démantelé ab réseau bu mag bu nekkoon diggante Parcelles Assainies ak jëppal nee ñu commissaire divisionnaire Djibril Camara di directeur bu police bu passeport moo ko découvrir dal di saisir élément sangare bu sûreté urbaine li leen daaneel nag mooy ab jigéen moo présenté wu direction des passeports ne frère bu nekk itali moo ko yónni ngir mu jëlal ko passeport am te boobu ki ko ko defaral mooy waajuñ naan kos defaral ko ko ci somme bu toll ci trois cent mille francs bi ñu vérifié nag ci saa si la ñu gis ne document voyage yooyu ñu ngi ko confectionné ci base ay fausses données. si la élément sûreté urbaine yi interpellé cause. ca Parcelles Assainies mu nangu ne moo defar passeport boobu waaye nag mi ngi ko defaree ci laboratoire waa juñ naan M Fall nekk ca jëppal doy na war ci la élément sûreté urbaine yi tegee dil waa jooju di M Fall ne ko dañoo bëgg ay passeport joxanteeg moom lie mu dade faak ñoom sawaay noonu la daanoo waaw góore waay ci laboratoire am boobu nag nañ fa ay faux passeport yu bari ay faux fausse pièce d'identité ay faux document d'état civil ak ay feuille biométrie yum doon confectionné yëf yi ci kanamu enquêteurs yi nag kos ak M nangu nañ na yàgg nañoo yëngu ci dil bu ni mel moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca mbuur te fees doy na war fofo ci benn armel la ab 4 x bu weex gaare trois heures du matin dugg ci armel ya fa ne gas ba mu xóot dal fay suul amul bopp fas bu ñuul bu defi xaatim ak ay tànkam may laaj nag waa jooju kan la doon fexeel ak lu mu doon fexe ba tax mu def jëf ju ñaaw di ni mel yow mal dina tànk mu toonoon seen xibaaru buzz di daje samedi ci yeneen xibaaru buzz